yéen mbokki journaliste yi fi teew ak mbokk yi fi teew noo ngi am mbégte di ñëw fii tey ci kaw ndigal ak tur ak baatu ki nga xam ne tey ji nun mooy sunu sunu sëriñ Tuubaa mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général des Mourides àllarba lan daje ci kër gi ci Daaru Minam mi man mi Basiiru Poroxaan ma jóge Poroxaan ñëw Tuuba sëñ ma dikkee ñang ma taar surañ Mamar Jóob Dëkkuroa ak sëñ Bas Mbàkke mii jóge ndakaar ñëw Tuuba sëñ bi woon nun ñépp te amu ci kenn koo xam ni wax na la lam lay doye walla la tax mu jóg loola nga ñëw man ñaare waxtu moom yàlla ko bindee muy koo xam ne du firnaal kenn daan def bu may woo lu may man di doyee loon damay woo wax ma ko nangam ak nangam laa lay yónni bii yoon la ma sa woo te xamuñ ci sama bopp dara ba agsi ñoom ñi loola leen daal nga xam ne damay jékki-jékki rek daje ci néeg nun juróom suñ mu jékki-jékki rek agsi agsi génn toog nu yoogu noonu daal ni maa leen woolu li tax mu woon leen mooy yéen dangeen ngeen bokk ci sama njaboot kenn ku ci ne am na cër boo xam ne danga koo amee ci kër gi ak ci njaboot gi ak ci yoon wi ñaareel ba it mu am ci yéen yaakaar yoo xam ne am na yitte yoo xam ne bu ma ko amee war koo doxal sama bopp kenn ku nekk ci yéen doy nga ma ci moo tax moo bëgg yéen juróom ngeen ànd ndax réew mi toll na foo xam ne fii eh, man ci sama wàllu bopp li may wut ci sama diggante ak sama borom fay laay alhamdu am naa ci yaakaar bu baax ne am naa ngërëmul yàlla ab julli nag bu amee ngërëmul yàlla ci àdduna ba am ci yàqin yaakaar naa bu fekkee ne noppalu rek la bëgg mën naa tëdd noppalu waaye mu ne àdduna moom yàlla da koo binde fitna yàlla def itam képp koo gis muy dox ci kaw kaw suuf bu amee njaboot rek moomut bopp moo tax ba li am ci réew mi dafa mel ni biir Tuubaa gi la am dafa mel ni sama biir kër gi ci la am noonu la ma méttee noonu la tiisee ci man rawatina bakkan yi nga xam ne dañ cee rot te lépp di réewum senegal di bokki kese bokk ndey bokk baay di yeewoo ci menn réew di yeewoo ci seen suuf metti na ma naqari na ma tiis na ci man léegi nag ab bëri moom ñaare koy seq xeexen ñaare koy seq mbaa ñaari mbooloo yu bokkut ginnaaw nag lii am na ba noppi li ñuy njëkk def mooy jàppe ko nattu yàlla xam ne fitna la fitna nag du xeexee rek taxaw day am sabab lu amul sabab ci àdduna amul loo gis mu am rek sabab la am na sabab waaw maa ngi sant yàlla am na sabab lekk naa bu suur am na sabab damaa xiif lépp lépp am na sabab leen lu ne am na fu mu jaar ba doon la doon ah nag am na sabab fitna la waaye am na sabab ñaare ko séq kenn ki am na lu mu wax ki ci des waxaguma ak moom te man du ma àtte ñaari mukk te dégluwuma ñaari ñëpp ba xam sama ñaari gone buñ jotee buñ jotee te fekkuma fa mu ñëwee dama naan luñ jotee kii lu mu def kii lu mu def ma door a wax lu may wax te sama ñaari doom rek a jote kon nag ginnaaw kii am na lu ma xam ci moom ña ma ña nga ña des nga xam ne xawma ci ñoom lu bari te mbooloo lañu di ay ay ay parti politique di ay association di société civile mbooloo lañu mu kenn xamul nuñ toll mënumaa dem ci ñëpp mënumaa laaj ñëpp te yàlla dogal na nag njaboot gi lu nekk ngi ci ñaari ñii bokk nañ ci Mamadou Diop Decroix ak ak Makhtar Souran nii Madické Niang ku ne xam ni politicien la waaye ak taalu bee ko ñor démb moo ko ñor tey te bu ko yàlla dimbalee moo koy ñor ëllëg yéen ñi sama ñaari doom ngeen ñoo xam ne dégguñ kenn ci yéen mun na ci lu mu watt nekk mbaa mu ànd ak ku mu watt àndal mbaa mu ne ci fen bàyyi dëkk kon nag yéen juróom bu ngeen àndee kuñ ku ragal yàlla te seet yàlla fu ngeen ne dañ xam ne suma jëmm fa ne kon dem leen bu ngeen demee ginnaaw yàlla dogal na ñi bokk nañ ci mbooloo ma tey samay doom dong lañu ngeen waxtaanal maa ngi ñëw mais lii am metti na ma tiis na ma te xam naa ne ñaare ko seq du ñoom rek waaw du ñoom rek sa léegi nag li ma bëgg nag balaa dara xew nañ jàmmoo ba noppi ndax ñaar boo leen di atte ku nekk nga ne ci digg bu ku ne dóorub yar bu yàgg doo ci kon nag ni njëkk a def mooy nañ ma dimbali ngir yàlla mi nga xam ne moonu boole réew mi jox mu cër bi ma jox tey ji bi ma lay ña li ma leen di ñaan xale bi général ñaanu leen ko sëñ Muntaxa ñaanu leen ko citoyen ni ñoom moo leen ko ñaan kon nañ ma dimbali ngir yàlla ak réew mi ñu bokk dakkal xeex beeg fitna ji ba noppi wax ma la leen naqari ak la ko sabab buñ ma ko waxee ba mu mat bu ñu mayalee ba noppi ndax bu ngeen leen koy wax kat bu ngeen ko ko mayatoon tey jii lu ngeen waxee duñ ko ko wax noonu ndax ñàkkun fayda te xam na ñu mu tànn yónni leen fi. kon nag buñ ma mayee lii ba noppi wax ma leen naqari ak la ko sabab ci seen wàllu bopp jeneen doom ja ca des nag te nga xam ne ñoo jaamaaloog moom danaa leen woo ni ma waxee ñoom ñi nu ko raw laay waxee ñoom bu fekkee lu ñu def la ñoom tam ma man leen bàyyi leen ko dindi leen ko réew mi am jàmm ngeen jàmmoo del del doon ay doomi mbay ak doon doon doon ay liggéeyal réew mi liggéey Sénégal ñoom it ma ñaan leen yéen bu ngeen may bu ma leen ñaanee ngeen may ma adduna sépp danañ ko yëg moo ko waxut sax danañ ko yëg ndax <laughs> jàmm ci la lu ne xaj te ku am jàmm xam ko ku am ay xam ko te ay du du du yem ci bopp borom ñejo de sit bu ñu ma waxee la leen naqari la waral lii am ñu jaamaarloo gi am fitna ji am danaa leen wax nii nii ma waxee ñoom noonu laay waxee ñoom nee nañ ma kat nangam am na nangam am na def ngeen nangam nangam naam ma ko saw naa dakk na fi yam loolu laa leen digal ñaan naa leen yéen itam ngeen def nii li indi jàmm ngeen def ko te mooy li ñuy wax bu ñooñee defee loolu jàmm bu ñooñee deful loolu nag ma xam ne sama ñaari njaboot ñi ñu jote kat ñi may nañ ma ñi mayuñ ma te àdduna sëpp ko loolu la sëñ bi yabaloon ne nañ nañ nañ fi ñëw bu ñëwee nag yàlla moo wax dëgg yàlla waxtu ne daan bett ak xeewal waaye tey ji bett nañu ak xeewal ndax liin fi fekk kat fooguñ koon ndax fekk nañ fi loxo yu ubbiku xol yu ubbiku xel yi ubbiku ñu jàppe nu ne ñu bokk ci ñoom daanaka jàpp nu ay doom ne nëbbuñ nu dara wax nu lépp ginnaaw bi ñu leen waxee li sëñ bi bëgg lim leen ñaan ak lim sàkku ci ñoom ñu xamal nu diis goo xam ne loolu gis na ko ne sëñ bi lu mu bëgg danañ ko def waaye li mu bëgg kat du lu woyof wax nañu ne na ci biir lépp lañu naroon lépp ak la naroon am lépp ak waajtaay yépp na buñ ñu ci dara lépp wax nañu ko waaye nañ li muy diis diis diis nag ni ko Ousmane waxe sëñ bi moom ñaan ñaanu da da leen a te loola danañ ko def waaye nag danañ wax it li ko sabab ndax bu ko sëñ bi waxatoon ni bu ñu ko waxtu ëllëg si biir lii day dellu si rek léegi nag ñoom it wax nañ mboolem la nga xam ne moo leen naqari wax sabab mboolem li nga xam ne moo indi lii lépp te te te njëkkee bu lu yàgg la ba agsi fii lépp bind nañ ko déglu nañ ko jàpp nañ ko nii nu amee ngoru déglu sëñ bi mu yebal nu wax nu lim nu wax nu ñëw bàyyiwuñ ci dara incha allah ngoor googu la am ba bu ñu demee lu ñu fi jële duñ ci bàyyi baat moom nag ci wàllu boppam ni ma leen ko waxee yaakaaru man dangeen ko gën a gore ndax kon du tegu fenn bu ngeen gënee gore sëñ bi du tegu fenn kon du doon lim doon waaw te wan ngeen ko ngor ndax xëy na xamut sax xamagut sax li ngeen ko may ni mu diise ak ni mu ci yéen ndax nun ñi mu yebal ban fii ñëw xamuñ ko bi ngeen nu ko xamalee ak gun ba xamal ko ko waaye yaakaar naa buñ ko ko xamalee te dëggal xamal ga wax ko ni ngeen ko waxee na ko xamee bu ko déggee bu ko déggee nañ ko ko waxee yaakaar naa du ngeen ko gën a ko de lépp loo xam ne mën na ko dana ko def doom nag da ko jur mu ëpp la doole nga wax ko mu bañ danga ko jur itam ngeen yem doole mbaa nga digal ko mu def di ñaan na leen digal na leen def ngeen ko muy benn doom bi ba ca des dana ko ñaan dana ko digal bu defee nim leen sant gërëm gërëmee leen ko ci kanam àdduna sépp dana ko def dana dana leen ko defal bu ñu ko defutit àdduna sépp danañ xam ni ñaan na leen sàkku na ci ñoom mayiñ ko loolu daal moo doon tënkub tànk yi nga xam ne moom lañu dox si ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ma sëñ bi booleel te kenn ku ñu nekk mën a wuutu sëñ bi ci mbokk akuk bi ak pas-pas